maanaam Abdou Diouf bi muy nekk président kenn falu ko maanaam Senghor a doon dem moo tax mu nekk président loolu laa wax jam ñépp xam nañ ni jamono bi Ablaye Wade di nekk président de la république entre ñaari tour yooyu xam ban kuréel moo fi nekkoon fal la woon mais fal boobu front pour l'alternance la woon maanaam folli abdu Diouf loolu lañ doon wax man mii maa créé woon jeunesse pour l'alternance ñu ànd ko ak ñeneen di wut alternance maanaam ki fi ne na fi jóg na dem lañ daan wax am déet na dem na dem a dem am déet na dem moo indi Ablaye Wade bii Macky Sall di ñëw dafa fekk nit ñi ne bëggatuñu ñi ëpp bokk bëggatuñu metre Wade am troisième mandat maanaam kon boo xoolee dañuy folli rek. nit di toog maanaam yaa fi sës di taxafal te nag am réew li nga xam ne moo doon saluam mooy bu ñuy demati ci élection ñu bañ a jiital na dem mais keroog dama leen caa tegal na leen président Senghor def na fi lu baax ma teg ci ne président Abdou def na fi lu baax teg ci ne président lay Wade def na fi lu baax teg fi ne président Macky def na fi lu baax waaye dañoo bëgg a def lu ko gën kon jamonoy na dem moo war a jeex du tee nit dem nag waaye maanaam dem gi taxu noo jóg na deñ it bëgg nañ ko mooy bu amee lu baaxul loola deñ bu amul ku baax bu amee ku baaxul mu dem bu amee lu baaxul mu deñ waaye li ñu gën bëgg nag te def ko suñu waxin mooy suñuy dem di wax ak di wër ak di campagne ak di waxtaan ak nit ñi dañuy wut li gën ki lay wax li gën nag dàqul li baax dafa ne ay la yéwén xëy na lii baax na waaye ñu dañoo bëgg lu gën maanaam kiy def lu baax sax war naa bëgg lu gën ndax ñépp xam nañ ni kenn ku nekk boo amee doom sax boo sañal sa doom gën la tekkiwul ne baaxu nit dafa war ci àdduna di wut a jëm kanam di wut lu ameliore li mu doon def mooy gën gën boobu nag ci cadre rafetal ñun ca loolu lañ jëm xam nga gën boobu mooy lan mooy fexe ba di fal fexe ba bu ñuy demati élection ñuy wut fal fal mooy lan mooy faale askan wi faale askan wi mooy lan mooy xam ay yitteem leeral yitte yi ba ñépp dégg ko wut ñoo xam ne dañuy fas yéene buñ leen fi tegee ñuy jaamu yitte yooyu askan yàgg na ko dund Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si dafa am nu mu ko nu mu ko tënkee dafa ni politique dafa mel ne picc yu daje te xiif nee na picc bu naaw rek doo mën a dem ndax li nga xiif ndax fa nu naaw jëm benn saaku dugub la bu ne ca kaw ñu ne nañ dajale dunq yi seet benn picc ñu jox ko ko ne ko boo naawee ba ci saaku bi da koy bëtt pepp mi ruus ñu bokk lekk ku ne joxe sa dunq ku ne joxe sa dunq ku ne joxe sa dunq ba dooleel picc mi picc mi dem ba ci saaku bi au lieu mu bëtt ko mu toog ci kaw di lekkal boppam waaw mu ni wallaay ndeysaan tabaarkalla tabaarkalla mu ni loolu buñ la ko defee benn yoon def la ko ñaar yoon def la ko ñett yoon beneen yoon ku la laaj dunq nga bañ ndax dangay ñàkk dunq ñàkk pepp ah nga téye sa dunq di pët pëti loo for jël loolu moo daan am euh, mu mel ne et ñu ngi réitérer la fait que ce mouvement jógul contre personne mais sa mouvement dafa jóg pour la peuple kon képp koo xamante ni yow dem nga ba retrouver wu face au mouvement c'est que yow yaa nekk face au peuple képp koo xam ne yaa ngi jàppale askan wi yéene ko lu baax bëggal ko lu baax ñun ak yow far ak nu nu faree nag mais képp koo xamante ne yaa ngi bëgg a gàllankoor askan wi te di ko néewal doore yow yaa jàkkaarloog askan wi yaa jàkkaarloog ñun bu ñu sañoon nag ñépp yeewu bu ñu sañoon ñépp gëm bu ñu sañoon ñépp nekk ci lu baax ba permettre vraiment askan wi mu mën a jot ci li nga xam ne moom moo ko moom muy sañ-sañam mooy réhabiliter la souveraineté du peuple jërëjëf